am na fa parti waaye liggéey na xam yàlla bu ñëwee rek yàlla ñëw na d'accord Sonko am na fa résultat bu parfait waaye kii nga xam ne moom mooy ñëw nii di kaasoo di kii nga xam ne moom mooy jaataa euh, ndaw si bokk na ci ñi nga xam ne Assome Diatta bokk na ci ñi nga xam ne Macky Sall lay nooyee ah. moom ndax Macky sàll lii nga xam ne moom ndaw si jot na ko sagal ci commune am ak ci département ak ci bureau ndax Macky Sall da koy fal waral da koy folli ndax moom mosuñu koo fal nañu xool moom nan la dundee remaniement bi ndax dina ci dégg turam war a di turam ñu dem seeti jigéenu joolaa bi nga xam ne jigéen ju mën góor ci biir këram lii nga xam ne moom mooy résultat yi Casamance mbokk yi seeti Assome Diatta nan lay dundee këram waaw ah baax na kasumay kasumay kepp ko doon molo ake <laughs> man dama demoon aafi ñaam waaw baax na yàlla baax na ah jeeju aysa jeeju <laughs> jeeju jeeju jeeju nga nuyul ma maala koli waaw baax na waaw sukuna booja gëj naa ko dégg kay a ah, ni a ah, paas ma sama mbokk soose boobu kononante kon kononante ibidie a ede doron ani ke ke wa ke wa ke wa ke Solomon Kolle Solomon Kolle ala barka ala mana tiara kera la ala barka man ni Kolle siyaare jante baax na baax na waaw kay yàlla baax na xam nga ñun bu ñuy liggéey Macky Sall liggéey ñu sax pour ay poste i xalaatuma Macky Sall def ma ministre lool loolu dafa mën a am ah yàlla baax na ah loolu de yee man kay comme que fexe naa ba Casamance côté bi ma dëkk mu am fa ndam te xam na ne man liggéey liggéeykat ndax mouvement bi ma yor Macky Sall xam na ne du caaxaan ay yow loolu <laughs> ay loolu boo ko nga ne amin amin waaye loolu xalaatuma ko de ah ah commencé i commencé na xaar ma jàpp xool xam naa ministre Macky Sall yu bees yi Macky Sall de moom comme que am na ah. ministre de l'éducation nationale ndeysaan monsieur Oumar Gueye ah. ministre des collectivités territoriales. ah président et de l'aménagement du eh ay bu ma fa ay bu ma nekkoon ministre lii. monsieur Cheikh Oumar Anne. Ah. ministre de l'enseignement supérieur. <laughs> de la recherche et de l'innovation. yow kii ñee naa ko de nekkoon kudd dem nekk. monsieur Moustapha Diop. Diop benn bu Louga. ministre. du développement industriel. ah Macky am na kóllare. et des petites et moyennes industries. ndeysaan ndeysaan ay Macky moo baax. à la barke monsieur Abdou Karim Sall. ministre de l' ah. et du développement durable. ay yow ay yow ki moo nekkoon directeur ARPT. madame Sophie Galadima. di ko laat ministre des Mines. et de la géologie. ah non Macky nag ku baax la ala barka Macky. monsieur Matar Ba. <laughs> waaw sport. ministre des sports. ah moom kay daf ko monsieur Samba Ndiobène Ka. eh ku bees la. ministre de l'élevage et de production ah, animale. ah eh, waay ndokkale eh, waay kii Macky baax na de. Eh, monsieur Samba Si. ah ndeysaan. ministre. du travail. Macky ku baax la nag. du dialogue social. ndeysaan eh. des organisations professionnelles. xaar ma woote sama mbokk yi et des relations avec les institutions. dafa mel ne ku ñu baax rek lay dimbali. monsieur Abdou Karim Fofana. waaw ah, ko de kooku baax na moom. ministre de l'urbanisme. waaw. Ah. du logement et de l'hygiène publique. Ah. madame Aminata Assom Diatta. ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises. Eh! <laughs> Eh, yow eh! gis nga seen yi ngeen di def nii <laughs> abaraka sumum fung fang fang fang <laughs> man sama nopp yi ñoo neexul war xaaral Fofana ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique madame Aminata Assom Diatta ministre du commerce des petites et moyennes